d'aller dalen ak jàmm ci xarala academy mbokk yi seen xarala académie top top suñu formation Python Django tay ñëwaat nañoo yeen ci beneen vidéo boo xamanteni ni bu am am solo la benn vidéo boo xamanteni ni moom moo leen di expliquer naka ngay def ba modéliser say table voilà parce que euh, programmation aussi euh, am na lu ñuy tuddee programmation orientée objet voilà te boo ñëwee Python surtout Django euh, sa table base de données yëpp da koy def un objet voilà récréer créer classe c'est classe bi nga am objet classe tout simplement moi point d'entrée par exemple tay mën nañu wax am nañ fi classe homme objets objet moy lan par exemple Ousseynou nous est un homme voilà lolu c'est tout simplement lolu moy classe ak objet les léegi euh, la bonne nouvelle bu nekkee da ngay liggéey Django parce que proche bo meuna a def lu ci ëpp lu base de données voilà base de données yooyu noonu am na lu base de données SQL ak base de données NoSQL base de données SQL tout simplement moom la base de données relationnelle comme MySQL PostgreSQL, voilà am na tamit base de données yu NoSQL comme lu mel MongoDB ok d'accord benn bi stop bu nekkee da nga Django Django dafa am lu ORM voilà Object Relational Mapping xam nga leen benn exemple. jango dafa am luñ nane naan ORM bokku na ci li gëna def Django euh, puissant parce que avec ORM bu jango yow do bind ben code voilà amul ben code SQL bo xamanteni dang koy bind te li nga soxla ci SQL dang koy am voilà mu nek euh, mbir bo xamanteni ni bu am am solo comme ni nga gisee ni bu nekké ORM bu nekké SQL ni ngay def da ngay créer table page bi bu nekké Django ni ngay def classe ngay créer page nga def titre bi comme fi gis nga titre ba ni nga def permalink comme nii nga def li nga soxla ok mais ñun suñu cas dafa différent ak lii parce que ñun amuñu ay titre amuñu update date amuñu lii léegi lan lañ soxla ok léegi dañuy ñëwaat si euh, suñu application voilà moo nekk nii dama ko ubbi ak VS Code voilà ajouté naa benn fichier bu ñuy wax cahier de wala bon quelque cahier de charge quoi parce que ay petites lignes la rek voilà ñun ñu lan par exemple tey dañ loo demande ñu defal ñu benn application boo xamante ni day may benn utilisateur bu mën a inscrire Pour me connecter, connecté wu stocker les coordonnées d'une personne après mon défi def en tant qu'utilisateur simple euh, je dois voir que les contacts que j'ai créés euh, bon il y a une répétition mais grave. vous êtes un utilisateur simple contact que ma créé là, laay j'ai Ok. gis ok bu super utilisateur vous mën nga j'ai le droit de voir tous les tous les contacts ok bon yii tamit ay prérequis la te da nga koy noté bu baax a baax voilà nga xool ndax lim laaj def nga ko wala defoo ko voilà ñun defaguñ lii defaguñ kii defaguñ ko voilà accès guñ foofu. ok beneen bi stop bi ñu intéresse suñu vidéo tey moom moo nekk nii mooy pour chaque coordonnée nous devons enregistrer voilà coordonnée bu nekk maanaam booy créer benn contact pour chaque bon contact Ouais, bon sur chaque coordonnée c'est la même chose pour chaque contact nous devons enregistrer un nom un prénom un numéro de téléphone un mail. une date voilà mu nek lo xamanteni lu am solo la te mu nek ben guide voilà li da nga am guide bo xamanteni mo lay permettre nga meuna xam fo jëm voilà léegi ñu ñëw si Django models Django am na ben fichier comme projet bi gis nga ni models point py fii si ngay def tout ce qui est say table voilà table SQL wala table bu la meuna jox comme fi fi meuna imaginer ñu ni am nañ table contact bo nañ ko imaginer quoi parce que contact la tudd table toujours donc bind en euh, ma majuscule début bi ak tamit singulier voilà comme ni par exemple mën nañu wax ni table contact mo nek ni ok si Python boy créer classe noy def bon da ngay def classe nga def nom classe bi voilà comme contact le tout mais am na lu ñu héritage voilà parce que am na ay données yu bari yoo xam ni si si modèles bii nii au lieu ñun ñu koy créer waat parce que buñ ñu ko naree créer waat kon jaruñu utiliser benn framework ok mais duñ ko créer waat dañuy ñëw fii rek dem jël ko fi voilà pour jël ko nu ñuy def dañuy def lu naa naan héritage models point model comme ni gisee nii voilà indil na ma ko ma def nii wàcc à la ligne léegi fii nii fii nag la ñëw ñu def par exemple li ñu laaj nom prénom numéro téléphone email date d'enregistrement voilà l'utilisateur qui l'a créé ok léegi nom égal models voilà léegi. damay pause fii tuuti wan leen exemple tuuti voilà ñëwaat si fichier ma wan leen quelques exemples bon xaw ma nag mën naa utiliser beneen fu ma mën a dessiner mën moo ko am ah ok c'est bon bon amu fu ma dessiner donc damay damay noter fii nii donc voilà léegi bu si njëkk pour yéen noonu la war a nekk parce que am na ay lu ñu naan ay type de données wala ay type de champ voilà SQL dafa am lu ñu naan ay champ en SQL SQL noonu mën nañ ko def lu naan varchar varchar c'est important concept yi voilà pour ngeen xam ko balaa ñoo continuer si jàngo bi ngeen nan li lu muy si li ok donc non mën nañu wax varchar mën nañ ko limiter aussi si bon 255 cent cinquante cinq mu cent caractères voilà limite bi moo ni quoi bon limite voilà longueur longueur ok euh, type type égal à varchar longueur égal voilà prénom tamit mën na la même chose ok numéro téléphone aussi mën nañ ko def varchar email mën nañ def varchar si SQL quoi mais si jàngoo na leen wax lan lañ koy représenté date d'enregistrement moom moom ki lay date date time stamp time stamp voilà am na beneen champ boo xamante SQL lañ koy def une ID mooy ID quoi ID moo nekk primary key mooy clé primaire type al euh, clé primaire ok donc id moo nekk ni date wala timestamp longueur bon am longueur fii parce que longueur mi concerne euh, champ de caractère yi maanaam varchar lii nii moom mooy nekk foreign key clé étrangère bon type bi égal à clé étrangère ok bon duma de ponctuation quoi parce que clavier amol primaire type varchar longueur 150. ok les pour représenter Django Django parce que dafa différents champs Django field ok voilà mini en France des champs des modèles mini field champs yaa ngi gis fii gis nga dafa def model point Carfield foo gisee ñu def Carfield rek moy varchar en Django en en SQL manam SQL bu nee varchar bo ñëwee ci Django da nga koy def Carfield voilà parce que mën nga travailler ak ak benn administrateur base de données wala koo xamante ni gère tout ce qui est la base de données léegi moom moo lay jox table légui léegi pour nga jël table yooyu traduire en Django da ngay def ki ñu mu sax Charfield ok models point Charfield c'est bon.

plus nga def ka plus mu gëna yomb après boy liggéey ah what the, ok mo bi int lay nek quand même auto aussi bi tamit c'est auto increment parce que fay créer automatiquement sinon dañuy jom bi <laughs> varchar la email bon email si jango amna lu ñu email field email field ok c'est bon bi tamit ah, si jango amna lu ñu naan time pas de max mais dañ ko bëgg def oto voilà <laughs> bii nii si jàngoo am na lu naan fo forin kii bon bi moom ah. kii pas max ok c'est bon donc comprendre ngeen bu ñu amee SQL lii si njàngoo lii lañuy jox int ok donc euh, bëgguma vidéo yi di gudd trop moom moo tax si beneen vidéo bi ñëw lañuy ñuy commencer continuer suñu classe modèle jël données yi ñu am fii nii daal ko fii def merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel